asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokki Qul ñu ngi leen di nuyu leen ziara di nuyu oustaz Maodo Faye di ko ziara baax a baax waaw di ko wax ne ñu ngi doon déglu léegi audio mi am na solo déglu nañ tim ñenn ñi nga xam ne dañ koo commentaire commentaire yu am solo bokk na ci Cheikh Bamba Dia maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziara di wax ne waaw ah waaw oustaz Maodo day comme ni mu ko waxee moom maanaam. information wala xibaar bi nga xamee ne donc da koo jot ci nit moom dangay indi xibaar bi rek ni nga ko ni nga ko jotee boo amee commentaire nag nga taxaw fële ñu xam ne lii sa xalaatu bopp la te moom comme ni nga ko waxee lim indi jële ko ci imam Kanté moom la imam Kanté wax waaye xam naa kay buñ la dee reproché dara mooy maanaam yow dëgg nga imam imam Kanté ni nga ko dëggalee mooy. da wo da ngaa wone ne li muy wax ko ko xam la ku jàng la ku mokkal alxuraan la ku baax la kon kon liñ ciy dégg mooy kon gëm leen li mu wax de loolu mel noonu lañ ciy dégg mën naa am nag yow jubluwoo ci loolu waaye loolu boo ko defalee nit loolu mooy gëm leen ko rek mi ngi mel ne keneen nit aussi nga wax ay waxam ba pare daal ne ah du nit ku baax nag du nàngam du nàngam du nàngam mooy tey leen ci ay waxam. loolu dama la ko jàngal yow journaliste nga waaw léegi nag lii may wax nii nag li tax ma koy wax ak yow mooy damaa jàpp ne nit ku am ouverture nga d'esprit bu nit dee wax ak yow da nga xam ci niveau bi muy wax ak yow waxuma ko ngir critiquer la waxuma ko ngir nàngam waaye sujet bi dafa dafa sensible surtout nag ci place bi nga koy xam muy waqul jaal xaq nga xam man ngaa wax ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñi fi nekk ay daara lañ yor di jàngale kon nag euh, boo dee abordé te yii dëgg-dëgg dina baax lool nga ñëw information bi rek bàyyi ko noonu su ko defee nit ku nekk danga nga natt imam Kanté mi nga xam ne xam nga ko da nga ko natt yow maalumaat yi nga xam waaye bu fekkee ne yaa yaa ko présenté waat ci biir wax ji wane na ku baax la ku xam am alxuraan la ku nàngam ak nàngam la ku professeur université la ku euh, ko mokkal lool nàngam ça veut dire li mu wax nii lu plausible la li mu wax nii lu crédible la li mu wax ni lu am misdaqiyi la gëm leen ko loolu leen niroon waaw ñaareel bi mooy imaam Kanté mi ci boppam kuñ xam la maanaam ku moom ku am ay ay afkaar mutatarrifa la maanaam jaar ci diggu yoon wi dem rek mu mënu ko waaw yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku euh, bi masaalikul jinaan di ubbi waxoon na ci ay wax yoo xamante ni ci jëmale ko ci jumaa jooja ku déglu wax ya day mel ne am noon buy wax loolu la doon niroon ginnaaw bi sax présenté na ay excuse waaw dafa am loo xam nit dañ ko war a xam moom mi amoon na fi jafe-jafe bi mu fi waxee Waly Seck booba ñëpp takkatoo ànd ak moom ne nañ ko bàyyi nañ ko may aafiya nañ ko may jàmm ndax dafa gis loo xamante ni si dafa yàq réew mi mu wax ci bien que am na ay boroomi ay boroomi am ay imaam yu taxawoon nële ñaanal ko excuse ba mu génn ci ne man soxlawuma excuse nangam nangam maanaam zarf bu nekk dafa am nuñ ci war a taxawee bu fekkente ni si dañoo jóg rek singili daara ci benn zarf ci benn temps singili ko ci lépp rek xale yi di ramas di toroxal sëriñ daara yi di wax ne yalwaan mënut a am nangam nangam ñu nekkuñ France Sénégal lañ nekk daara ci suñ culture la bokk suñ aada la bokk alxuraan dañ ko war a jàng gouvernement bi ana lu mu def ngir jàppale nit ñu jàng alxuraan dara école publique yi nga xam ne ñëpp ko bokk xaalis bi ciy dem ñëpp ko bokk bàyyi donga daar yi dañuy fay kon un état ci boppam moo tooñ parce que moom moo waroon a prendre en charge njàngalem an ni organiser ko dugal ci loxoom budget bi nga xamante ni si moom lañu def ci éducation nationale daara am ci wàll gis nga bu loolu amoon bu ñëwee ne defaraat leen toogaay yi ñëpp a koy déglu waaye koo xamante ni si du la jàppale ci lenn hmm? boo ko waxee mu ne ñun réewum layit lañ maanaam moom ay devoir am defu ci dara bëgg ñëw di réclamer ay droit de regard ak dama bëgg ngeen def ni naan ah boobaa nañ koy wax ne ko dëgg la yow yaay état yow yaa war a taxawle lépp waaye nag ñun de ba ñuy sos daara gisuñ la ba ñuy doxal daal gisuñ la yow daal ab yar ngay ñëw rek di dóor waaw nag dëgg dëgg kuñ ko loolu kuñ ko def nga bañ loolu moom lañ ko xam dëgg la ñun xam nañ ne daara lu am jafe-jafe la waaw am nañu ci dugg di mbubboo sëriñ daara te duñ sëriñ daara di ci def loo xamante ne si lu tegginuwul la di ci exploité ay xale sax nag waaw am na yenn conditions yu daara yi nekk yëpp kenn nangu ko waaye dañoo jàpp ni loolu lépp li ci ëpp boog gouvernement bu sàggan bu bañ jël ay responsabilités am bu bañ bañ a prendre en compte préoccupation peuple am moom moo ko andi waaw xam nañ ne ñun nit daara yi xam nañ ne suñu daara yi lu am ay jafe-jafe lañ moo tax ñu nit ñi àndandoo def ay association def ay ay fédération moo tax ñenn ñi jóge ci daara ancienne yi daara traditionnelle yi ndax problème yi yi fa nekk yalwaan mi ak yooyu ñëw ubbi ay daara def ko internat te bu soobee yàlla day gën a euh, évoluer rek waaw day gën a évoluer rek ñun ñëpp ñi lañ tàmbalee woon Sénégal foo fi dem rek moom iy tàmbale tàmbale bu la woon mais avec le temps day moderniser daara yu njëkk daara yi traditionnel ci métti ba léegi waaye nag boo ko comparé daara yu njëkk yi da naan am na amélioration ci internat yi kenn xamatul ñaata la ay junni junni la ñu ngi ci ñu ngi ci niveau yëpp ñu ko indi mais yalwaan boobu pour dakkal ko moo tax bokk na ci li tax ñu indi internat yi te ñu ngi ci yoon wi hmm? loolu ñu ngi ci yoon wi léegi nag dañ leen cee war a jàppale heure bii du heure dem taxaw ci gouvernement ba di ko répété la mu war a wax surtout koo xamante ni si imaam la koo xamante ni si sa waay bu waxee ñu déglu ko heure bii du heure boobu heure bii mooy boo amee looy wax demal ba ca sëriñi daara yi boo demee dañu la ubbil nga jox leen ay conseil waaye taxaw ci rajo yi xaw ma da ngay wut tur xaw ma looy wut journaliste yi laaj la di ko tasaare yow li sëriñ daal yi wax yow yoon newu ci yow daal li nga wax mooy euh, l'islam amul dara lu ci obligé nag muy yalwaan dëgg la bu fekkee ne mbir yi dama war a doxe la doxe yalwaan amul place waaye bu ko doxewul nag am njàng moom mënta nekk gratuite fenn soit parent d'élève bi moom moo war a fay njàng mi te loolu mooy li nga xamante ni si moo ëpp mooy jaar moo gën a jaar yoon wala gouvernement bi fay ko loolu it moo ca topp ci jaar yoon wala sëriñu daara ji fay ko wala xale bi fay ko ndax fokk koo xamante ne fii moom boo fa nekkee fokk dépense bi am il faut mu am ko ko fay bu fekkee ne euh, parent bi amul doole sëriñu daara ji amul doole ku ci sës xale bi lañuy wax na ko dama yalwaani loolu ko indi nañ fexe nag améliorer condition yi buñ bëggee dindi yalwaan bi waaw ndax yalwaan dara indiwu ko lu dul bëgg a jàng alquran te amuñ moyen yi loolu rek moo ko indi dañ jàppale li ñu ci mooy gouvernement bi sëñ bi moom hypocrisie lay lay lay joué maanaam nifaq gis nga Iba Der Thiam rahmatullah alayhi yàlla na ko yàlla yërëm bañ ko njëkkee fal ministre de l'éducation nationale année bi ni mu jeexee ñu war a joxe subvention yi mu xool ne mission catholique bi école yi ñu ngi leen di jox six cent et quelques millions école sëñ Mouta al Azhar bi nga xamante ni si mi ngi représenté Sénégal gi yëpp xam nga ñaata lañ ko doon jox jamono jooju moins de six cent mille francs kee ñu ko jox six cent millions moo tax gouvernement bi naa feq la waaw mooy yàlla naa feq la préoccupation population yi soxaluñ ko ñun ay tubaab ñu ñëwoon colonise ñu fekk fi daara muy xeex daara sëriñ daara yëpp mu bundu xatal leen yóbbu leen ci àll église bi nga xamante ni si moo fi nekkoon di jàngale mu jox ko ay moyens jàppale ko ci ay école di ko jox ay subventions yu rëy teg ay araqil ci kanamu waa ahlu daara Sénégal amee indépendance li waroon moo ñu dekkal daara waxtaan ak ñu daara yi organiser mais lépp kenn defu ko dañ cee téye seen loxo rek jàppale wuñ leen ci dara su ko defee ñoom it ñu màgg nañ ko mën rek population bi ànd ci parce population bi ñooy joxe saax yi ñooy nday daara yi ñooy nangam nangam kon suñ aada la waaw aada nag boo ko bëggee améliorer da ngay ñëw indi ay moyens taxaw xool jàng problème yi ba xam ko dajee ñi nga xam ne ñoo ci bokk nga waxtaan ak ñoom nu ñuy def ba nangam yi nga xam ne dafa dugg ci suñ daara yi ak nangam ak nangam ak nangam néew ci nga waxtaan ngeen teg ay kii waaye yow faale woo dajale woo waxoo kenn diggu sax gën na fee garaaw ndax boo demee boo demee am na waa BAD defe naa comme banque islamique aussi lay wax joxoon nañ fi defe naa lu war a mat trente neuf milliards xaw ma quarante milliards joxoon nañ ko sëriñ daara yi danañ leen tabaxal ay daara moderne loolu rek gouvernement bi da koo jëloon détourné ko defe naa defe naa yóbbu ko ci ay plan tàkkal yeeg ak yu kenn xamul ay at yu bëree bëree bëri fan yee ci at yee ci ginnaaw rek lañ commencé ne dañ ciy tabax ay daara moderne te liñ ci def ci ay daara moderne sax bariwul te loolu waroon nañ ci mën a dimbale daara yépp daanaka moo tax problème yi dafa bëri imaam Kanté li muy wax nii li mu ci jiblu fi mu nekk nii mooy néewal doole daara néewal doole daara lay gën a nirul ndax bu fekkee nag ay conseils yoo joxe la fédération association daara yi ñu ngi lay déglu waaye nag waroon naa yëkkati làmmiñam condamne na gouvernement bi condamne na état bi na ko état yow li nga war a def di ci dara waaye ñëw rek dal ci daara yi yelwaan waru fee am ak dañuy exploité xale yi loolu loolu loolu loolu la noon daara yi di wax loolu la noon daara yi wax mais xanaa yow comme yow daaraa la formé yow imam Kanté ba nga toll na nga toll ba boo waxee ñu déglu la mais commencé di tudd ci njëriñu daara ak histoire daara ak li mu apporté nit ñi ba léegi am na fi ay daara yoo xamante ni si ñu ngi def ay résultat yu mag ndax dañoo ami moyen daaray Kott daaray Fass Touré daaray Buun daaray Jaamal daara yi nekk Ndar daara fu nekk daara yu baax nga fa def lu nekk. bu ay benn benn daara ci biir yoo xam ne dañuy yelwaan par manque manque de moyen wala am ñoo xam ne dañ cee raaxaloo wala am ay sëriñu daara yoo xamante ni si jàngule wuñ dañoo bàyyi seen xale heure bu nekk ñu nekk ci mbedd meeg yooyu commencé tudd ci tudd maxaasin yi. bokk na ci maxaasin yi mooy ñu génnee ku mel ne yow Imam Kanté bokk na ci maxaasin yi mooy ñu génnee ku mel ne Maodo Faye bu fekkee ne Maodo Faye moom mi ngi jàngee Manarul Huda mën naa am foofu école euh, école la école nizamiya la privé waaye na ko wóor ne ko jàngal moom muy oustaz Ahmad Lo ma nga jàng kokki da daan dem di yelwaani comme man nii ak keneen ku di naan dañ daan jël suñ pot dem dugg di yelwaani ci loolu lañ dunde ba toll ba toll nañ war a toll te tey kuñ toogal buñ la ko waxul da nga yaakaar mu seen ci daa jaara te nag mbir yi buñ ko gaawal ko teg place am ay jënd yi nañ ko teg place yëpp dafa am lu ko waral dafa am luñ ko waral ñàkk moyen la moom moo ko waral waaw daal kuy wax daal wax wax ju nosewu yoo xam ne da bàyyi xel ñëpp la tolluwaay bi jafe-jafe xale yi dund yalwaan nangam ak couvre-feu ak ak yenn condition daara yi lu metti la yooyu lañu war a lijjanti la lu ñu war a lijjanti la waaye nag buñ fàtt ne daara am na ci am na ci ay rôle yu mag yoo xam ne joué na ko li tax équilibre mën a am ci senegal li tax li xew réew yu réew yu bari la fa xew xewul ci senegal ay coup d'état ay guerre civile lekk ay guerre nangam ak nangam boo ko bëggee xam dangay xool ñun liñ am te yeneen réew yu amuñ ko bokk na ci liñ am te yeneen réew amuñ ko mooy daara yi nga xam ne moo génne kilifa diine yi nga xamee ne ñoo téye réew mi di waar nit ñi ci yàlla nangu loolu leen ay gëm ay gëm-gëm nangu loolu leen ay dogalu yàlla ba réew mi baj bajiwul moo tax ku xamul rekk xamul kon nañ jàppale daara ba daara yëg ne jàppale nañ ko ñu conseillé ko ba ñu yëg ne conseillé nañ ko ñu ànd ak moom nag jéem a euh, régler ay problème benn benn te bu fekkente ni si dañoo nekk ci jamono yu waxtaan gouvernement bi di xëcc fii nangam nangam nitu daara yëpp nañ ànd ak daara wax gouvernement bi ne ko yaa tooñ ba ñuy négocier ñu ne da ngay def lii daara def lii waaye képp ko xam da ngaa ñëw fekk la gouvernement bi di répété nga di ko répété te wax te wax gouvernement ba dëgg da nga ba ñuy lim noonu daara yi yow yow ci ngay bokk te imam Kanté mii li muy wax nii loolu lay ñoroon asalaamaaleykum wa rahmatulah. waa pour jeexal rek dëgg-dëgg maa ngi rendre hommage maa ngi tatagal maa ngi présenté moo dafay ne kenn la ci ñun. dëgg-dëgg daaraa ko génne comme nit ñi génnee ku yitte woo la mbirum daara ku yitte woo la mbirum diine ku yitte woo la mbirum lislaam ku baax la ku ubbeeku programme yi nga xam ne da koo yor muy programme rajo yi ak programme télévision yi ku ci ubbeeku la képp ko xam ne am nga loo war a wax dëgg-dëgg ku lay ubbil ay buntam lañ waaw mawdu boo xamee ne aussi bu euh, am solo la it ñu ngi ci wut ñi nga xamee ne wóolu na seen xam-xam di ci daje ak ñoom ku baax la ku am participation la c'est wax a ñëw rek mu am nu mu waxee ñu di ko xamal ne ko ni nga waxee nii lii lay nirool waaye fidélité am pour pour alquran fidélité am pour lislaam fidélité am pour daara dëgg-dëgg kenn sikk sàkk wu ci kenn sikku sàkk ndax moom xaritu ñëpp la xaritu ñëpp la ku tesee nag bu fekkente ni si information ñëw na ku demee ne euh, imam Kanté mu présenté ko noonu ñun ñu wax ci suñ xalaat rek waaye kuñ naw la kuñ respecté la kuñ bàyyi xel la ku ñu amal njariñ la nag surtout suñ groupe bi ndax euh, information yi mu fiy joxe rek kenn mënu ko ci fay boole di ñu toppal lépp lu xew ci daara yi buñ fàtte ne saa yu ñu jàppee sëriñu daara moom moo ñu koy wax saa yu amee loo xamante ni si dañ ko jël teg ko ci daara wala teg ko ci sëriñu daara yi wala laale ko ci diine yi moom moo ñu koy wax te ab xeexam ci yenn fléau yu mag yi comme ngóor jigéen nag ak yooyu loolu kenn bërantewu ko waaw nit ñi dañuy paasante ay vidéo di ko déglu ku ñu amee njariñ la waaw man naa am commentaire bii mu wax ni bi ma bi nga xamante ni si moom laa wax léegi ne dama ci dama ci am franchise boo xam ne ku ma déglu day yaakaar dama koo teg fa ma teg euh, imam Kanté déedéet imam Kanté moom it amuñ moom amuñ moom jafe-jafe waaye yenn saa yi day day poussé mbir yi daal ba mu àgg foo xam ne ne du ko jaar maa ngi koy nuyu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp salaamaaleykum